sallallahu taala ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman wa innaka la ala xuluqin azimin wajjahtu abkaara amdaahi liman fadula على الكرام الخيار سادة الفضلاء وجوت أبكار أمداهي لمن فضولا على الكرام الخيار سادة الفضلاء وسني على المستوى والمدور فخاني في كل شيء فابل وزل خد جديلا نبينا منتقى ما يماثل في سر والدارس وخدر بدانا سيله في سر والجار زين خطيرا مدالا نفمت دائرة رسول الله في أبد إلى سوايا الأذى تخديمه خيله كوني خديم الرسول الله زمني علي تسليم ربي بان للقال لو صلاة بتسليم أروم بي ممن بإيق خدمتي بالفضل خد خبيلا عليت لمباخ لا شريك له كما بي خاد لي سرا لسبولا للمنتقى متبا المختار في أبد الكل بتمليك باخ كل انتقالا أزكى صلاة بتسليم بلا عدد على الذي خاد لي ما أخجل البخارى خذ الصلاة من خديم ذاكر أبدا يا من بي لا ألاخي سرمدا سقالا قصصنا من خديم ساكر أبدا يا من به لا ألاخي سرمدا سقالا لكم تداحي بمدغ لا يخالفنا يا من به لا أراه مالية خلا قلبي wa jismi wa ruuxi bika taybatul yaa afdalal xalq yaa man xaada lil yàlla qalbi wa jismi wa ruuxi bika taybatul yaa afdalal xalq yaa man xaada lil yàlla ilmi wa sahbi wa adabi ma al salwan بالمنتقى من كفاني كيد من مالا سور صدقك يا مختار باد لمن عزو سعادة يا من خاد للمالا يقود جورك لي سرا ألاسمه صلى عليك الذي قد خاد للمالا دعوت ضروري إلى إثباتي أبدا من جهادي بي والبي خدك مولا وإنك لعلى خلق عظيم ودي لمن بالنبي ليفتح الباب دنيا وأخرى وفيهم فخت أخبابا ودي لمن بالنبي ليفتح الباب دنيا وأخرى وفيهم فخت أخبابا إذا امتدوت النبي المستوى وزريه صلى عليه الذي ما زال وهابا نجاني الله بالمختار تجربة وقد كفاني تهويفا وإرابا نوي لخير الورى مثل العروض مع وكلكلي الجميل قد بخدنابا kulli li rabbi walil muxtaari duuna laxal waxablu jaatu bil amdaayi idnaaba lil muntaxaa kuntu amdaa ilaa malalin indal idaa qablu wal maluuni xadaaba alayas naytu amdaa hëmala wali walaa yuwajjihu li mawlaaya saqaaba للمنتخى قمت بلا بالورى خدما وقد كفاني به رحمن منابا أعطاني لو بالمختار مكتبتي ولا يوجه لي مولاي سقابا متبتي ولا يوجه لي من رام يتابع حسنت داعي يا مختار واسردا صلى عليك الذي قلبي بيتابا لي خدسولي وفوق ذولي من ملكي على بكونك خير الخلق أعتابا أسقط المداد بأقلامي بغيمة من سوى سروري بكوني باقيا يابا على الذي جاد لي بزول دونانا أزكى زلات الذي لي خاد خيابا على الذي جاد لي بزول دونانا أسكى زلات الذي خاد خيابا زهر التجاه لعفيز المانين بدل ولم أزل في حزون منه وقابا يدي علي عدون من مدى يمن أهدي له بسناء الرق أخابا محمد الخدمة خست الأذى إلى جنابي بمن يفتح بابا محمد الخدمة خسد الأذى إلى جنابي بمن يفتح الباب محمد الخدمة خسد الأذى إلى جنابي بمن يفتح الباب بسم الله الرحمن الرحيم wa sallallahu taala ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman wa bashara abadan sayyidayni sayyida wa sayyidata bi hazi qasidati amin ya rabbal alamin ya man xaala la nufariqu bayna ahadin min rasulihi fa kulli wa ashrabi bihi فزت بسرف الحسنات سيدة للمحسنات مريم مفوتي موخنات عند الذي لم يدركي مستيبي صرف الحسنات سيدة للمحسنات مريم مفوتي موحنات عند الذي لم يدركي كن فيكون لك خير الرسول الانتخاب وبكفاء سقوط خايات ولم يكن بمشركي لم يخف عند المؤمنين كون كيب المسلمين يا أم خير المؤمنين مخزومة من زركين يقودني لمدركي ما عنك فضل الخدهك فزت ببسر المدرك كل تقي المدرك واجاتك اليوم بما يديم لي خوتا بما إلا توائس بما من خير خسد الدرك أنت سلالة الكرام ما أمنا وكل عرام وأنت ذات الاغترام بلا انتهاء لسرك سكر ربنا الكريم ذهنك شكرا لا يريم ابنك نال ما يروم عند الذي لم يدركي رمت بسام حبك ردا يديم حرمك من رب ذات الهبك موت الهدى والنسك بالله زي كن فيكون طلبت منه أن يكون لك نزاه نزاركم وأن يتيب من زكي يا أم روح المالك يا أم جال الهالك ابنك لا بهالك عند العلي الممسك بارك فيك ذو الجلال وفي ابنك في الدلال ما يخلد الحلال لخارئ ممسك هديتي خزي بلا رد كما تقبلا عند الكريم خبلا من جدك مستبرك وخرعينا وجل يا ربي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 ci mbër mu rëy xalaat bu ko xamul mooy musawaa bismillaahi may defaan bayu di wér yun mën a mbër mu bu ko xamul mooy musawa ka bamba dem ba ko mu des nit ñépp tiit ba yoon wi tas mu jëkk rekk dal di ni cas moom fob yan ba moom seex musawa ku nekk naa naka pexe ngir kan xamoon xëy na taxe ci yàlla moom fu mu koy waxe buubu xamul kuy musawa am na ci seexu ya salaat ci musawa fe diliwaat am ci nu am beneen xalaat ngir ñàkk xam seex musawa seex musawa woote juma ne bay ba moo bëggoon juma lu man di am day fondement man yéemu naa ci musawa sa musawa woote juma ne lu man di am day fondement man am nañu naa yaa sa ngumbar xanaa yëgoo ñàkk gu tar gi am ci réew mi mu sawaa am dina leen du ngeen ko xam Seex Bàmba lu bëgg mu am jumaa ji moom fokk dana am mbaaru gi ron man mu sawaa mu sawaa dal taxaw ci naali Bàmba jëm ca kaw jiital fitam ak xel mu ñëw ba ñëpp naa ci musawa musawa dal di taxaw ci naali bamba jëm ca kaw jiital fitam ak xel mu ñëw ba ñëpp naa ci musawa man li ma yem ci musawa gaaña demoon bàyyi ko fa noo del siwaat ci musawa naan ñu ngi tuub yow musawa ñun seere na ne yaa fi gën ba noppi gëm na ne yaa fi man yow musawaa ay leweleen yaa dun xadiimal musawaa sëx musawaa moo bari jëm mooy taw bi taaw ay rakam ku nekk mu def li war ci moom ñëpp bëgg ci musawaa rakam ju nekk wax gërëm lu rëy fi moom lan koo gërëm mën naa ni sax koo dem këram fekk fa am Cheikh Moussawa Cheikh Moussawa may gërëmaat may nga ma man lun mën a moo tax ma jóg di la wayaat yaa neex a way yow Moussawa yow ku la moom dana way kenn du ko dabanaan ko ee ku la way du am way du mus li way man musawaa ku war sant maa raw ku war a tëgg raw xiraw lu leen te ni salaw mu way fi man seex musawaa sew moom mu dul musawaa fu yaa ko waral tey lu fi ñor yaa ko ñorul giñ man ëh kenn du la dab yow musawaa Cheikh Mamadou Moustapha Cheikh Mamadou Moustapha Cheikh Mamadou Moustapha daf leen diinu magal borom daarul xuddus wal tuf bina wa xawina wa kullana wa hab lana xusnal xitaami rabbana wa sallina ala nabi wa sallimi waqdi bi xaajatan kulli muslimi waqdi xawaaija allasina daamu fi xidmati wa hab lahum maraamu subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin addi sëriñ Tuba noo ngi ñaan bépp arafu xasida wu ñu fekkati yàlla na ko sëriñ bi nangu